Buldozer ma ñëw fekk la ci salle bi ngay pratiquer sport bii di MMA. ñu xam la ci làmb sa combat bi sa gis nga euh, la jot a xew sa nationale waaye topp nga ci topp ci topp ci ba jot ba am ci ndam macha allah ñu lay féliciter. merci euh, lan moo la dugal ci ngay pratiquer sport bi di MMA ak lan moo la ci dugal. waaw jigéen ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jug si yéen bi di sant suñu ñaar waajur di nuyu tey fii nga ñu fekk fii salle euh, salle MMA bi. di nuyu suñu su ak gars ñu fekk yëpp ak euh, suñu booy all di ko ñaan ak yàlla si combat bi mu jëm yàlla may ko si ndam xam nga di ko ñaan bu baax a baax champion la te gi si kanam gawiti bët ñun dañuy dund sport depuis yaakaar naa biñ biñ biñ nekkee xale depuis yaakaar naa bi ñuy jàng di def primaire ñu ngi def sport xam nga mais si làmb nag dama yàlla xiir mu débuté ko dem ba léegi nii xam nga yàlla def ma sportif sportif nag bàyyiwul dara tey yi ñuy dund nii maanaam sport moo nekk suñu yaram bu ñu xëyee defuñu ko sax dañuy am programme loolu yàlla moo ko dogal si ñun xam ñu koy santee yàlla nag bu baax a baax a baax xam nga lii tey ji motivation la rek ñu gis ko mu neex ñu ñu dugg si yàgg na ku ne xam ne ne man damay compétir boxe anglaise euh, fii nii Sénégal xam nga maa ngi compétir te maa ngi def kickboxing tamit xam nga di ko def di ko pratiquer euh, ma ne pourquoi pas mu dugg def MMA xam nga comme MMA léegi mi ngi mi ngi évoluer si senegal pourquoi pas ñu dugg si parce que ñun ay sportif lañ te xam sport la boo xamante ni sport yëpp a mais sport góor moo koy def affaire bu nekkul làmb kase sport dafa jaxasoo xam nga ñun góor moo ñu motiver ba tax ñu dugg te tey bi ñu si duggee bu duggee si boxe beeg MMA beeg yëpp non daf ñoo gën a daa a yokk suñu xam-xam si bëree ba tax na ñun tey jii bu ñu taxawee si géew mën nga ñoo xeeb mais ku ñu mënta bëreel amul baa nga kay sax bu taxoon mën nañoo bëreeg moom te doon programme gëm-gëm boobu nga ñam. MMA actuellement gis nañ mbër yu bari dugg ci. te yaakaar naa ni bëre dóor bi moom moo gën a yomb MMA. ndax arbitre danaan prip nga daw paqueté fekk sa mbokk yi jàpp nañ. comme pëli mhm. jàpp nañ ko ba mu sëf ko ba mu diis. Mhm. nga daw rek paqueté daan MMA est-ce que am na loolu. déedéet déedéet MMA am na combat sol. combat sol bi mën ngaa daan nit ki mais tey da ngay yaa ngi dégg tant que moo abandonné wul war wax yóbboo ko ak jour mu kaawo wala kaaw woo ko mu mu abandonné mënoo koo gagné mën nga koo daane sax toog si kawam mu gagné ko loolu mooy différence bi. bokkul quoi sport de combat ga mais dafa mais dafa am combat sol moo tax bokkul tax ma bëri moom da ngay jàpp nit ki rek daan fes bi gaal wala des fois bi gaal xam nga mu def carte yi ñu yëkkati sa loxo MMA amul loolu moo tax moo gën a métti MMA moo gën a métti endurance bi si nekk rek amul si gàmb xam te ñu yàgg dimbali nañ ci côté boobu noonu bokkul. ci sport bi nga nekk di MMA jox la sa naataango wala sa adversaire boo xam ne sa la. Hmm. ñu jox la ko di nga ko jël. bien sûr. waaw man hmm. sport laay pratiquer. comme saa bii. combat MMA rek laa bëgg parce que nekk na loo xamante ni maa ngi koy entraîné yàgg na. comme yan booy. non du ma nekk digg parce que xaw ma yan booy sax ñoo nekk si si si si kii bi di waaw. mais en tout cas e-, MMA bi niveau bi mi ngi yëg xam nga te ñu ngi sant yàlla. Hmm. yaa ngi dégg gis nañ gars tey di di def MMA. pourquoi pas tey jii Malick Niang amul adversaire nañ ma ko jox ma dem États-Unis xeex ak moom Malick Niang. Malick Niang waaw. mais gis nañ ku mel ne booy Sadio mu ngi ci mu ngi war a laaleeg Blende. waaw Blende bu Grand Médine. ñoom ci le 19 bi lañ war a laale. waaw ñoom war nañoo mën a gaawee si MMA bi. le 18. waaw ñoom dañuy kii si combat booy bi combat boy war a bëgge. xam nga mais tey jii yooyu yëpp ñoom bu ñu ci jógee war nañoo mën a gaaw parce que ay ay ay morom gañ ay ci MMA bi ay morom ngañ hmm. xam nga war nañoo mën a ñëw ñu ñu kii te yaakaar naa MMA sax méttuwul hmm. nekkut ak làmb nga xamante ni da ngay gàcc kii mu a nga maa kaw ak ay noonu MMA amul loolu hmm. da ngeen di toog poids ñu boole ren mën ngaa ëpp nit ki combat fuuf nga njëkk ko si tegaloo ñu jox la avance am ngeen ngeen ngeen combat yi ñaar MMA bu dee làmb nag maa gën ko wax dëgg yàlla mais MMA bu ñëwee ñu compétir waaw pare naa loolu moo amul benn programme. actuellement ci bëre door bi foo toll am nga combat am nga combat wala aj bëre door bi. ma de maa ngi xaar parce que tey jii am na promoteur yu ñu waxal instant bi bëri na promoteur yu nekk suñu ginnaaw di mais tey jii si programme bëri nga rek tey ku si mel ni caatu yof ñu ngi dox suñu combat. caatu yof caatu yof waaw. mais teeloon nañ ko avance bi caatu yof bi dóor Youssou Ndour mu daanu ngay wax. caatu yof waaw non man moom waxaale nañ ba jubóo. man waxaare naa ak promoteur bu jiboo pare naa bu yàgg si moom la des moom mooy waxaare sant bi hmm. moom moom ci waxaare la nekk sant bi moom waaw mais man waxaare naa bu jiboo moom noo gisee moom bëgg na la wala bëgg la non bëgg na man bu may bañ daa maa mën a bañ man damaa bëri ba yegg si te xëy na dañoo bokkul yoon rek mais adversaire yi ñu daan xoolal xoolal si adversaire yi ñu jógee hmm. ay naataangoo ngeen si gàmb dañoo war a bëre bëree sinon bu demee ba déwén après déwén day gën a métti si ñoom man xagaga damay màgg ñoom ñoo mag fuuf yaa ngi dégg mais sama jom ak sama fit sama ngor moo ma indi tey fii ma yegg si mm-hmm. xam nga ma koy sante yàlla nag kon dafa koy jóg ci avance ñu bëree bu bañee Youssou Ndour na jël avance bi ñu bëree Youssou ma si gàmb waaw Youssou Ndour Père Balla mu Père Balla Gaye non mu waaw Mbaye la mujjee daan de waaw paa yooyu mu am ci caatu yow moo tax nga ñeme ko yooyu noonu nga ah, may Mbaye Diouf Mbaye Diouf paa man man bu ñu mën a jox avance mbay Diouf damay bañ du ma ko jël parce que ma ngi tax mun naa koo dóor mu yàgga dege xam nga mooy loolu mun naa ko gaañ te man du ma may man xaw ma man xam nga moo tax du ma nangoo bëree mag man xaw ma baage man sport arbitre sifflé génn suñu diggante. Hmm. xaw ma yërëmaate. Hmm. nga nekk mbag waga teg sa ngemb dem toogi nan da ngay ut yi xaalis yaa ngi dégg boo ñëwee bu arbitre sifflé génn suñu diggante sa bakkan ngaa jël. yaa ngi dégg man du ma yërëmaate moo tax bëgguma combat ak ak ñoo xamante ne dañ naan ñii ñoo ma gën a âgé. Hmm. ay mag lañ war a nangam. damay bëgg combat jànk sama morom. caatu Yoff na jël avance bi boobu Youssou nañ jël avance bi mooy combat bi. ak loolu mooy combat instant bi ñaar ñooñu rek ñaar ñooñu nga gis moo jar moo jar moom tàpper ga wax naa ba sonn nee na bu nagay bëgg ak man mu baay bëre moo ko gënal moo xam na bàyyi mais na ko ren bu bu nangu wut bëre man ren doom combat yaa ngi hmm. dégg te su ma daanee combat ren déwén soxla ma ko lamb ji góor moo fi nekk de hmm. waaw góor ga nag mais ñu ngi sant yàlla bu baax mais lamb ji teggante bi ci lamb ji lan moo ko waral teggante bi mais mbëri ñoo ko xam nga tey jii tey jii man ma bëree daan c'est que booy yi tey jii lamb moo xaw a tey jii comme que mooy mi ngi mel ni gis naa benn booy barki démb booy caat Daara Fall. mu daan ku dul Youssou Ndour. yaa ngi dégg. nekk si télé bi di ma tëkku lu nekk mu wax ko. yow la laaj. waaw nekk si télé bi bu mu toog naan nañ ma jox bu bulldozer nañ ma fay xaalis bu ko jar mel nii man ak moom ay naaka ay naataangoor yi ma bëgg a xamal du ma moromam. du tax doo moromam. non dama ko gaw si gàmb bokkuñu. dama ko gaw si gàmb bokkuñu moom ay moromam ñi ngi si gàmb ji yaa ngi dégg. caatu Daara Fall moom mu ngi bañ a keere yaa ngi dégg. Mm. bëri na ay adversaire yoo xamante ni ay combat ga moog ñoom. Mm. ay Ardo Saba. Mm. ku daan moog ñoom ñoom ñooñu combat ga. man dépassé naa niveau boobu. mais yow nag daf la laaj am na droit laaj la mais bul ko wutal fu mu jëm. waaw am naa droit. mais Youssou Ndour mi mu daan daanaan la. mais dafa koy ay moromu Youssou Ndour gëj naa daanu. waaw non non kii moo ko mujjee daan Youssou Ndour caar yoof moo ko mujjee daan. waaw te caar yoof ñu ngi dox suñu combat su waxaare nga nekk. Youssou Ndour xoolal wës jàmbaar la jógee. kon Youssou Ndour mais waaw non Youssou Ndour ah Youssou Ndour nga Youssou Ndour bi nga bëgg waaw champion nga Youssou Ndour champion ga mm. yaa ngi dégg mm. mais malgré si ba xëy na dafa dafa daan Weuz Diambar daan Vieux Dacia mm. xam nga ñëw bokk yaa ngi dégg mais ku ne xam ne ne moom mbër bu yàgg ga yaa ngi dégg te tey jii kooku noonu ku mel ni caatu daaru faat da ko war a man combat bi sax moom ngaa faral yaa ngi dégg caatu daaru faat parce que moo gën a féete xage yaa ngi dégg mais bu mu daan tamit yaa ngi dégg di exagéré yaa ngi dégg fu mu tourné di tudd sama tur man du ma moromam na bëreeg ay moromam man ay Youssou Ndour seen i Youssou Ndour ngaa fa adversaire ak fii sa Balla yaa ngi dégg bu jógee si combat am ñooñu ngaa fa am ay adversaire hmm. seen équipe ñoom hmm. bu dul ñooñ amoo fa benn adversaire wax dëgg yàlla hmm. bu ñu waxantee dëgg quoi lamb ji nañ bàyyi teggante bi te mbër bu si nekk bëreeg sa morom yaa ngi dégg yàlla man man tey ji kan mooma tey indi fii ma kii man su man damaa war bañ xam nga booy dañuy bëri benn grand combat daan ah? rek bëgg aj baar wi man ñaara grand combat gaa bëri quatre yëpp ma tegee ko daan def onze combats dix victoires am benn défaite. yaa ngi dégg eh, sa diggante ak Brise de Mer de stade Iba Mar. waaw sama diggante ak Gine bu Yoff. Gine bu Yoff. Caatu Yaraax eh, eh, Pël bu daar mii. laay ay alliance biram ay boy bag ñi. ndaanaan nga. Ah. mais bokkul vraiment ay nga. Mbañi Kéré sama muram yëpp dama gën a daan. ay ndaanaan man teggiwu sama carrière amul amul amul benn mbër booy booy wax nga ne kii mag la. Hmm. wala kii moo mag si ñëpp samay muram ga te ñëpp combat bu ma bëree mbër mi nga ñuy jox favori hmm. te dama ñëw génn si pourtant yaa ngi dégg mais loolu man loolu laa jàppee gàmb fu mu toll nii dafa jot dafa jot ma bokk te du bokk sax damaa bokk damaa egsi si hmm. des mooy gars yi jël naa dox de waaw mais si promoteur bi nga desoon fu nangu woon nga nangu woon moom nangu na mais ah, dama ne man toog fi di xaar benn mbër ak benn promoteur man promoteur boo ñëwee wax ak man tey si suba gi nga ne ma bàyyi ba ngoor ma jox ko avance beneen promoteur woo ma wax ma combat ñu jubóo vite fait mu jox ma avance avance kooku laay jël. Hmm. avance bu njëkk a ñëw laay jël. dëgg yaa ngi dégg. Hmm. noonu nga fa demee ñu ngi sant yàlla nag di jóg si bi di baax. Hmm. di di maa ngi lay jaajëfal naa bu a baax maa ngi bëggee bu ndaw nag bu ndaw. maa ngi bëggee bu ndaw. ñu ngi bëggee bu ndaw bu baax a baax a baax.